waaw euh, tay euh, jigenu benno bokk gejjo ay jigenu majorité principe majorité prince euh niñ euh, koy waxate présidentiel dañoo daje pour waxtaan ak askan wi daje bi modi euh yeen ñep yéen a ngi dégg fan yi lu nekk ñukoy koy suñu maire Aliou Sall donc ñun ñi nga xamné nak ñun la nekk sunu maire géejawaay ñun ño xam kan moy Aliou Sall ñu jog nak ñu nit pour wax parce que ñi nga xam ne dañuy wax dañuy sos comme dañuy sos nag ñun tam mun mënuñoo toog di xaar ñu yekk suñu meer lu nekk te maire bi nekk maire bu baax boo xam ne mu ngi def lu baax lu ne Géejawaay lu baax li muy def ñun jigéen ñi nag ñoo ko gën a yëg parce que ku dimbale xale yaayam nga dimbale te tey ji Aliou Sall mu ngi dimbale xale yi mu ngi ko njëkk ci école yi defe naa ne école Ogo Diop dafa nekkoon meilleur CM bu Géejawaay ñu dem ba mu daanu kenn déggatu tey jii Aliou Sall defaraat na ko restauré na ko ba mu nekkaat na mu nekkoon defe naa de Daaru Salaam Salika noonu wàqi naan am nañ seen wàll euh, dem naa tukki dem naa këram guddi fekk jabaram teg ay valise ñoo ngi tukki may yaakaar ne ay sëriñ la ñuy génnee ay sëriñ la ñu génnee certes mais ay livre la ñu génne woon pour ay élèves classe d'examen yu géejawaay ndax dafa bëgg géejawaay xale yi fi génne nekk ay xale yu xarañ excellence bi ñu koy wax ñu tudd géejawaay mu woo directeur d'école yi ku ne mu jox la ne la am euh, bu xalé yi wàccatee fay len ay professeur ñu def ay cours de renforcement ndax dama bëgg képp kuy am rek nga nek excellent kon ko lolu ku koy def yang koy defal jigen ñi ñu ne déet mu ne jigen dem leen liggéey ci génné ay leket pour ku nek dem liggéey ci ku nek am ci lo japp ba xam ngeen way jigen ñi dañu am jom bu ñu xeyé ku nek yaangi xey ci loy wuti ci pour dak sa kër donc maire bu mel non ñu ne déet mu ne naa defar tam dëkk ñun xalaatuñu woon ne géejuwaay dina am université tey jii géejuwaay am na université xalaatuñu woon ne géejuwaay dina am bloc scientifique tey jii géejuwaay am na bloc scientifique dama ne Aliou Sall mu ngi ci xale yi xale yu bëree ngi liggéey defe naa ne loolu yëpp ci defaral xale yi la kon ku defaral loolu xale yi yaa ngi koy defaral ñun yaay yi kon ku mel noonu ñun duñ ko sànni defar ñin ñi doyul mu defar dëkk bi ndax defar dëkk bi paasewul mairie bi ñu taxaw gis ngeen ne mu ngi tabax mairie bu bees euh, fi ñu taxaw noonu yéen a ngi gis juma Thierno Souleymane Baal ci juma jooju 72 la nekkoon en chantier ba léegi moo koy yeggal ñu ne déet ñaari voie notaire yi gis ngeen ko dama tuddee foofu tey sax place de l'Indépendance bu Guédiawaye euh, dama wax ne yeneen projet ngi fi yoo xam ne Aliou Sall pro euh, mu koy préparé muy au lieu ñuy demati Grand Théâtre wala ñuy dem Sorano nañu am sunu théâtre bopp tabax ko fi bu ko defee léegi. ndax xam ngeen ne Guédiawaye ñiy joué Dakar fii lañ dëkk donc homme de culture yooyu au ñuy dem Dakar ñu jaay suñu culture mu indil dara ville de Guédiawaye donc ki nga xam ne mu ngi xalaat yooyu pour ville de Guédiawaye dama ne buñ ñu bëggee mu démissionné dañ koy bañ dañuy taxaw ndax ñun ñoo ko fal moom newul kaay leen fal ma bëgg na waaye buñ ko falul woon du falu kenn affecté wu ko fi dañ ko ñun ñoo dugg suñu ñu defar liste ñu voté kenn par kenn dañoo rang ku ne dugal sa loxo kenn forcé wul kenn liste am gagné ñu woo conseil municipal bi kenn ku nekk dem voté kenn forcé wul kenn mu gagné kon ñun ñoo ko fal comme ñoo ko fal nag ñoo koy aar ku ko bëgg a dal ci kawam rek dal ci suñu kaw. xam nga ñun. aljuma dafa di bes bu aju aljuma ñun rek ñu ko ñun julit chrétien yi sax dañuy wax aljuma saint ñun it aljuma nekk aljuma bu saint kon dama wax ne aljuma bes la bo xamne bes bu for la kon ñom suñ ko jëlé pour tiaxaan tiaxaan du wey li wey moy deug rek moy mujj boy fen di nga am gaa ñu la jappalé parce que duñu xam ndax li ngay wax deug lool deug waye buñu démé ba sa cëppaandoo la xam nga li ngay wax dara du ci deug doto gis kenn té lool mo dal sonko fi mu né sonko wéet na ci xeex bi ndax Sonko nee na bu faloo benn tarixa dootul am Sonko nee na bu faloo dina dindi contrat pétrole yëpp Sonko nee na bu faloo dootuñu séddoo pétrole bi ak Mauritanie duñ ko séddoo ak Guinée Bissau waa Sonko li mu wax bare na waaye duma ma attardé wu ci Sonko ndax dama jàpp ne xale bu xamul fu muy teg tànkam la maa ngi leen di gërëm wasalaam